Assalamualaikum mbokki senegal Actu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lañu wax bakkan bu ñam dundu di nga ñam dee mbokki tay dañu yewu ak tis muy laqub ki di Ousmane Tanor Dieng jiite won parti socialiste mu nekkon ko xamante kilifa la ci réew mi kilifa la won tamit ci bitim réew teewal réew bi fu nekk kooku nag bu làqoo dinañu fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ñoom la seqaloon langue politique bi ndax ci la doon yëngu ñu si kii di mel ni euh, le président Abdoul Mbaye jiite parti bu ñu naan ACT monsieur le président ñu ngi lay nuyu di dalal jàmm fii ci Sénégal Actu ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoo tamit boo ñu mënee waxal tamit lan nga xamoon si jëmm ji làqu di Ousmane Tanor monsieur le président. waaw ñu ngi ñu ngi masu xibaar bi nga xam ne dégg nañ ko koy masu Sénégal yi yëpp. Hmm. ndax nag euh, Ousmane Tanor dëgg la xëy bokk ñu woon parti waaye dafa am lu mu tekki woon fii ci Sénégal hmm. euh, bi muy liggéey présidence de la République nekk fa ministre itam doon njiitu parti socialiste hmm. parti socialiste doon parti bu mag ci ci Sénégal am lu bëri loo xam ne di liggéey na ko fi hmm. waaye li may gën a jàpp ci moom mooy li nga xam li lii moom daf ma ko doon faral di fàttali yu ma dajan ak moom. muy lan di ma fàttali liggéey bi mu daan and ci ceeg le juge Kéba Mbaye mhm. ci biir commission des droits de l'homme mhm. euh, ci ay euh, ci ay euh, réunion yo xam ne ñoo ci commission des droits de l'homme au niveau international hmm amna solo loolu nag euh, indi woon sax mu jàppoon le juge Kéba Mbaye muy euh, son maître à penser ci yenn anam yi ak itam mu doon bàyyi ci moom hmm. kon loolu bokk ci li war a tax ñuy li am ñu koy mettitlu waaye nag euh, yàlla lu mu dogal rek ñu war ko nangu hmm. yàlla na ko yàlla yërëm di xaaral ko àjjana ñuy jaal itam sax naa doomam ñi mu doon liggéeyal ci biir parti socialiste ak ñi mu doon liggéeyal itam ci au conseil des collectivités territoriales. Hmm. dëgg ni euh, ñu seetlu ni président lii mooy wane ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar malgré euh, divergence yi nga xamante moo am ci wàllum politique bi tew tamit ñëpp am bu naqar ñëwee tey jii muy waa mouvement présidentiel muy opposition bi ñëpp koy bokk loolu lan lan la war a mën a jàngatee si ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo ŋànk yore doole bi tey. Sénégal itam ku nekk am na mbok fu ne hmm. kon tiis bu dikkee bu dalee ci kenn dal na ci ñëpp loolu ñëpp war a jàpp loolu hmm. euh, te nag ni ma la ko waxee sànq itam hmm. xam ne am na wàll bu mu dox lu jëm ci Sénégal am wàll bu mu dox euh, jëm ci Sénégal ci bitim réew ndax lii ma muy liggéey boo xam ne bi daan na ko liggéey ci commission des droits de l'homme loolu am itam mm. am na loo xam ko international socialiste loolu yëpp bokkoon ci mm. Sénégal bitim réew kon am na loo xam ne Sénégal am loo itam liggéey na ci bitim réew mm. muy muy muy muy ci Sénégal loolu yëpp kenn mënu ko que dëgg la euh, itam koo xam ah ci Euh, ni mu doon politique li taxoon mu am kaddu ci politique loolu mm. mi ngi jóge woon ci ni mu doon yaatal militant yi képp ku ñëw ci moom mu nangu la déglu waxtaan ak yow te loolu loolu am solo loolu wane na ne itam euh, loo xam ne mi ngi woon ci nekkoon na ci ci xolam mm. yaatal yaatal yaatal moom nit ku baax koy def dëgg am na solo la la laa ci a tey moom xam naa ne xool ya fees duñ la mën a teelu yàgg ci ligne bi en tout cas ñu ngi lay a baax di la sant di rafetlu aussi say kàddu ak say témoignage tamit ni nga ko waxee woon tamit si Sidy Lamine Niass mu mel ni tey ñu ñëpp nga séqal jàmm lu bu weesoo wàllu politique bi xam ne moom ngeen séq euh, yéen a bokk ndey yéen a bokk baay loolu mooy Sénégal un peuple un but une fois la ñu wax. absolument hmm. jërëjëf président. jërëjëf ok jërëjëf Seck jërëjëf jërëjëf.